yéen gars gisoo leen dégagement wu Queen Queen bu laalee coquette walaal suuf bi wàccee ko ci ndege wi nii Queen war dox xam nga dañ jàpp ni urul ay aljana la nekk Queen wax ñu dëgg urul ay ni nga da ngaa fàqee aljana. yee salaam gai, yi ab blowing toujours en beng beng wala artiste comédien acteur de cinéma comme niñ koy waxee tiktoker influenceur. yee blowing bi nag. gars mi ngi jógee nag ci classe bi parce que dañ doon def cours gars di joxe ay mots yoo xam ne day jeexee ing man nag ma toog jaaxle comme abu bulo lañ ma doon wax xamatuma fu ma jëm ma xëcc ing bi rek teg ko ci bulo bi mu nekk bulo ing ma laal ko prof bi avance dem sama yoon kenn du ma rey man. lii lii lug la rek xam nga man ba may ñëw sànq sama karaw daa ñuul waaye dama dox ba ci biir naaj bee ko laal mu commencé xonk ak man sama man daal dama bëri dama bëri cas daal. ba YouTube parce que TikTok ak Instagram. pour man mënu ma fa wane sama talent dama leen di cappal tuuti ci man di leen ko jox waaye YouTube au moins si court métrage dinaa fa mën a wane li ma mëne ah Queen Biz Queen takk ma Queen Queen takk na ma takk man jarul man du ma yónnee góor de moom na ma ñëw jël si ma mu takk ma ma sëyal ko yit gars yi gisoo leen dégagement wu Queen bu laalee coquette wala suuf bi wàcceeku ci ndege yu nii Queen war a dox xam nga gars yi dañ jàpp ni urul ay ni aljana la nekk Queen wax ñu dëgg urul ay ni nga da ngaa fàqee aljana oh Queen nag je suis désolé dama nitu benn jabar da ngay nangu muñ rek ndax aana mi nekk mër si tam mi ngi sama xel man rek waa bon bari na de commentaire yu bari na est ce que mën naa ci jàpp sax mais yu bari touché na ma daal mais commentaire yi ma touché bari na trop parce que gars ay borom baax lañ. premier jour bi sama yaay di ma ñëw seetaan sur scène fekk dama ko doon naan ma comédien la mën naa mu jàpp ma ni yow joueur nga mënoo dara mais nag jour boobu noonu dama ñëw toj club anglais bi ñu wàcc mu daw kottuma loolu dafa sedd sama xol. waa bii nag benn waay la waa ji dafa ñëw ne. dugg ci kaar bi quoi nee leen da lekk yàpp da leen lekk yàpp da leen lekk yàpp da leen lekk yàpp oto bi laal doo daan wàccaat rek mu wocc soom bi rek mu teg ci mu ne dee leen deseeroo soom bi nag yàpp kese doyul <laughs> Sénégal yéen a ma gën a xam amut beng beng wala ngeen wéet ñu ndax lu bëree ngi ñëw man ak yéen nee naa leen jeexagul léegi te tàmbaleeguñu sax kon nag léegi-léegi ñu tàggatoo amut beng beng wala